Sénégal itam dafa am aada comme nga ko waxe mas naa ko wax Idrissa Seck bu mu nekkee premier ministre te jéem jéem jéem doxul ñu ñëw seet si ma ma ni ko ma ko du juum Sénégal niroowul ak France ya fa nekk niroowul ak Sénégal man ko Sénégal koo fi gis balaa mu samp këram dana ko dana ko sampe lu ne dana wuti ku ko ñaanal dana wuti lu mu xam def ko ca kër gi du tas wala kër gi du yàqu ma ne ko kër boo ko bëggee nangu fa nga nangoo ko sal ko da waroon def ay ñaan ci jàkk yi ma ko taxaw taxawaay bu ma sëkk ci palaasu ñaanukaay yi ma ko jàkka yu mag yi bu ci nekk nga yónnee leen au moins ki benn xar wala benn nag may leen un million yi ne ko nga door a dugg ci toj kër yi waaye xëy rek pujux pujux pujux pujux ne ko lan la jël résultat baa ngi mooy Abdoulaye Wade di ñëw na rejeté na li nga def yëpp dootu ñu fi defe feetu indépendance bi si digganteeg moom yàqu na man ko c'est fini pour ko toujours da ngeen di bàyyi xel ni Sénégal bokkul ak Suisse bokkul ak feneen ay aada fi gën a dox balaa ngeen dugg ci toj ñaan lu leen li nga wax léegi gis mag ñu baax ñi ci jàkk yi ngeen ñaan loo leen su ngeen amee seen cinquante mille franc ngeen joxe fa wala seen cent mille franc ñu séddoo ko ñaan moo ëpp doole fukki ngeen naan ma dugal la xalwa ak ma defal que Sénégal dafa am aadee boppam loolu fi lañ ko fekk fi lañ koy bay tubaab yi sax gëmoon nañu ko